asalaamaaleykum ami chers fidèles internautes ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen euh, ziar di leen dalal jàmm fii ci biir Equivox TV la chaîne leader mais aussi c'est la chaîne qui informe juste en temps réel ñu ñëw ci li nga xamante ni rek kawteef ñoom ñoo ko daal di xamle muy coowal Viviane Chidid nduur ak ki nga xamante ni rek moom mooy Aby Ndour ak doomam bi nga xamante ni rek moom mooy euh, Binouche ginnaaw rek euh, track yi nga xamante ni rek amoon na seen diggante muy coow loo xamante ni rek ci réseaux sociaux yi daal gisoon na ci euh, loolu bu ñu sukkandikoo ci information bi nga xamante ni kawteef daal dina koy joxe ñu ngi xamal ni daal moom Viviane Chidid Ndour ni rek moom mooy Aby Ndour ak doomam bi di bindu ci bu euh, Faidherbe ñu ngi xamal itam ñaar ñooñu lee muy yaay ak doom dem nañu wuyu ji fi nga xamante ni rek moom mooy ca gendarmerie ba waaye ba nu génnee gis nañ ki nga xamante ni rek moom mooy euh, binus daal di yuuxu ca kaw ne rek yaayam amati li nga xamante rek moom mooy ndam moom mel ni rek convocation ba ñoom ñoo fa jëlee li nga xamante ni rek moom mooy victoire Viviane nag génnoon na daal di tontu selon sa manière ndaxte rek gis nañ ko ci soirée boobu noonu mi ngi doon wax naan ko dangay xaar maa la jàngal woy sa album ba maa ko way euh, nga wax ci kaw. mu nekk daal coow loo xamante ni daal dox na diggante Viviane ak ki nga xamante ni rek moom mooy Binouche ak euh, Abindour teere ji na fi nga xamante ni rek moom mooy ca gendarmerie bu Faidherbe bu waaye dafa mel ni daal ndam li ca côté bee la daal di euh, amee muy côté ñoom Abi Ndour